bisimila mbokki internet euh, xibaaru bambuk di leen wax rek dalal na jàmm tey nag ñu ngi fii ci mairie bu Koungheul war a ànd ak yéen ci installation euh, di nouveau maire de la ville de Koungheul monsieur alion Badara Ly loolu nag euh, gis neen sànq ki nga xamante ni moom mooy la préfet de Koungheul monsieur Ousmane Niang dugg ci salle de délibération fi cérémonie officielle bi war a amee loolu nag dañuy ànd ak yéen toppal leen xew-xew mi lépp lu si rusé ci kàddu ñi mën leen ko dégtal bi après le maire day am ñetti adjoint si loolu aussi bureau bi aussi il faut ñu respecter parité bi loolu aussi ñu ngi leen koy ñaax bu baax comme que moom dañ ko fal lu ñu ko installé ba noppi rek moom dañ koy bàyyi jàppale ko mu def élection du bureau élection du bureau nag wax nañ ko ñetti adjoint la war a am ñetti adjoint yooyu aussi il faut ñu respecter parité bi comme nu ngeen ko xamee indi nañu urne euh, isoloir yi indi nañu urne indi nañu aussi ay carton yoo xam ne ku bëgg a fa euh, nekk adjoint du yëkkati loxo mu ñëw tànn benn kii après ñu xool naka la ñuy defee élection yi loolu nag dañ ko jàppale mais maire bi moo koy def donc duñ ko installé ba noppi moom maire bi mun na def discours am après discours am aussi ñu mun a vraiment passer à l' du bureau et l' du bureau ni ñu ko waxee léegi donc le bureau day am euh, ñetti adjoint donc doo jëlee ñetti adjoint at la maire mu nekk quatre donc membre du bureau de la commune de euh, de la commune de Koungheul donc monsieur le maire je pense que veuillez vous le contact avec les populations di vivre la ñuy vivre booba ngay xamee nit ki nit ki mënoo xam jàngoroom te jegewoo ko bul def ni maire yi nga xam ne nii buñ ñëwee ñu gis leen peut-être eh, prochaine échéance lañ leen di gisaat walla ñu toog ay 3 mois wala 6 mois ñu leen kenn du leen gis kenn du leen mais bu boobaa tu ne peux pas connaître les problèmes des gens c'est pas possible kon nag yéen ñi nga xam ne yéenay say collaborateurs maa ngi leen di dénk loolu tam ngeen taxaw ci bu baax ñi nga ñi nga xam équipe bi équipe bi yëpp laay koy dégg parce que ñu ci bari samay rakk leen samay jarbaat leen samay frère leen samay xarit leen kon nag yéen ñëpp yéen a bokk recommandation yooyu capacité d'écoute vous approchez des populations et dama ne olof na ne li duuf ci nag wi yëpp xajul ci cin dañuy nag ñaanal équipe municipale bi ne yéen bi nga xam ne nii moom lañ leen population Koungheul yéen yéen bi yéen ko yàlla oyofal may ñaan population Koungheul bi yëpp conseil municipal bi yëpp nañu ànd nekk benn jàppale Aline Badara yi ñi nga xam ne tey bésu tey. mooy meeru Koungheul yëpp nekkatul meeru fii du meeru Diamaguène du meeru Santhie du meeru Mali du meeru campement waaye meeru Koungheul yëpp la kon bés tey liggéey bi nga xam ne nii moo koy xaar ak équipe municipale bi dama bëgg ngeen xam ne Alioune Badara lii moom ak équipe municipale bi mu mënuñ koo def yenu mairie dafa diis Koungheul dafa rëy li fi te Alioune Badara li kenn du ko wax ne ko lii lañ war a def lii lañ war a def lii lañ war a def li ci Koungheul yëpp juróom benn at ba bis tey dund na ko xam na ko kon nag dañ koy ñaanal jàppale ko ndax mission bi nga xam ne ñun ñoo ko ko teg population Koungheul ñoo ko ko teg yàlla jàppale ko ko ba mu oyof tey sama xol dafa sedd li tax sama xol sedd le 22 dama taxaw Ribo Escale di def sama déclaration ne bés ni ki tey ànd naa ak Alioune Badara Ly dinaa ko boot roganti ko ba teg ko ci mairie bi yàlla dogal ko tey kon man sama ñaan dafa nangu Badou waxoon naa la duma ànd ak nit mu daanu ku ma àndal mu dégg wiw kon sa ndam li tey dëgg la ndamu Koungheul la waaye sama ndam la bu demee woon neneen maa ngi ëmb sama bagage di toxu Gàmbi waaye nag yàlla du rusloo doom ju baax Badu yàgguma ànd ak yow waaye damay reccu li ma yéex ànd ak yow Badu yaa baax Badu yaa gore Badu yaa xam gëdday doomu aadama Badu yaa xam mag Badu yaa xam askan Badu sa pal gi yal na sedd padu sapal gi yal na yokku tu es le visage du président de la république Badou tu ministrable. donc ñoo ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp ku nekk ak seen tur ak seen sant di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di leen remercier encore ndax tey je pense que bis bu remercier voilà bis boo xam ne dañ ko jege ay wàllu remerciement la bu ko defee ñuy féliciter sunu monsieur le maire. ak son équipe monsieur Alioune Badara Ly ak son équipe di leen gën a encourager aussi si liggéey di jaaja jaajëfalaat bu baax a baax mais bu loolu weesoo avant ñuy remercier kenn dañuy remercier sunu coordonnateur Madiaw Mbengue sunu coordonnateur dañ koy remercier bu baax a baax a baax ndax pratiquement depuis six ans on était sur le terrain en de travailler et travail boobu tey moo war a tey réussir bi donc ñu ko remercier tout d'abord monsieur Madialom voilà monsieur Madiaw parce ça aussi di remercier aussi jeunesse Koungheul bi yëpp toute la jeunesse bu Koungheulwaas amul góor amul jigéen ndax tey tey bu ñu defee tey ba tey ñu def Alioune Badara tey maire tey jeunesse bi aussi am nañ si rôle bu important boo xam ne ñoom joué nañ ko si. donc euh, di coup damay dalal xel sunu maam bi di wax ne collaborateur Alioune Badara lay nañ ko jàppale incha allah ñoo ngi dalal sa xel. répétition et pédagogique di gërëm sunu yaay Adja Ndioufa Gaye di ko bàllu àq di ko bàllu àq di ko bàllu li mu daj ci campagne bi ñu ñu nekkoon ci terrain bi dajuñ ko diggante yaay ak doom toog ca kër ga di wirdi di ñaan des fois muy feebar ak yu bari yu ci nekk stress baal ñu àq di gërëm sama aawa ak suma ñaareel di gërëm ñi fi teew ñëpp li ma ciy dolli mooy monsieur le maire Olof Ndiaye dane li nga jàppoon ba am lii bu ko bàyyeeti jig na la te xam naa ne doo ko bàyyi parce que ku la xam xam ne ci lii ça fait des années yaa ngi ci mbokki Koungheul ma xamal leen ne seen xel na dal li tax mu war a dal jëlagul fonction keroog man ak moom à jëlagul dara commandé na ñaari benn ca Belgique benn bi agsi na port beneen bi mu ngi ci yoon bi départ ñu ne waaw mu commandé mille lampadaires lampadaires yi ci mbedd yi commune boo dem état bi moo leen ko jox dotation de deux cent ñi trois cent ñi quatre moom ci xaalis boppam mu commandé ci mille te loolu li mu defagum te toogagul. xam naa ci lu bëri macha allah laf cat nañ ko ñaanal mu gën ko man mbokki Koungheul Macky Sall dafa bëgg Sénégal émergent mais Sénégal émergent dans des région émergentes ci département bu émergent mais Koungheul sara émergent avec Alioune Badara. ba ñëpp xam ne registré na dafa dëggal boppam mu tegal leen le rejet. bàyyi liste boo ko Yaakaar demal boppam ma fekke ko bala ngay xam góor nga wéet ak moom ci ruxu wan ko xaalis wala nga tukki wala nga séq ak moom jigéen kilifa ci réew mi woo ko ma ànd ak moom ak yàlla kooku wax a wax a wax ba sonn lu ne mu jëm ko ci moom mënu ko bu mu génnee yem ci man dafa ne ma Lamine mënu moon wax ne Badou yow la àndal ndax nga dimbali ma ci moom nekkatul nag secret mais dama leen di wax parce que seen maire la tey ngeen xam ki leen doo leen ko kenn ku ne mën na am lu mu wax ci moom lu moroomam fekkul te bu ne dëgg la waa ji ne ko post laa lay jox mu ne ko bëgguma post xam nga loolu waroon post bi pour mu bàyyi ko maire bi mu bëgg bëgg mu ne ko bàyyil maire bi ma jox la poste seen maire bi ne ko bëgguma poste mu ne ko dama lay jox marché état mu ne ko soxla ma marché état mu ne ko marché wax bu ndaw ay milliards laa la wax mu ne ko milliards Koungheul ma ko gënal maa ko fekk mu ne leen léegi pexee lañu bëgg mu ne leen ku ngeen jiital yéen la jiital su ngeen ma jiitalee ma gañe ku ngeen fa jiital naa ko duma duma ngeen tey daan leen amul réget bi mooy loolu boobu la rejeté li ñu jox yëpp jëlal boppam dem ci liste boppam mu ëllëg si biir ànd ak ay nawleem ñu gañee département bi mais li leen indil tey bi ngeen ko falee c' est le projet mooy quatre phases yi mu bokk ak président Macky Sall projet c' est la reconstruction de la commune de Koungheul ñun ñëpp ñu war ci ànd jàppale ko taxaw ci ginnaawam. troisième phase bi may terminer mooy nit ak dëkkandoo dëkkandoo yàlla da ciy wax da ci seede koñ ba ma dëkk ak moom mag ñi xale yi ndaw yi ay soxnaa ngi toog di ma dégg amul ku badu dul dimbali discrètement waxuma ko mais maa dëkk ci koñ bi di gën di dox di ay témoignages ba pare gis ko ci moom constaté xëy baax dafa yomb dëkk ca moo jafe ni nga mel ba nekk si fii bu ko bàyyi jig na la suma rakk nga suma ma xarit nga suma ma camarade de parti nga jox nga ma cër te gor gu ne ñun gor amuñu njëg kenn mënuñoo jënd xaj ñu ci poos président daa toog nit ñuy wax ma ne ko xajuma ci loxo bañ may ngëb te kenn du ma boot maa kii ñoo bokk lu ñuy wax Pape mi mais lenn moo ñu mën a tënk muy cër ba du joxe na cër ba mu jeex tàkk amul kuy taxaw magu mës la manqué respect mbaa toroxal la mbaa xamu ko c'est pas dans son quotidien bi ma xamee ay waajuram xam naa ne kenn yarew ko noonu nit ki nag butéel bu nekk li mu ëpp rek lay xeeñ nii rek nga mën a mel yàlla na la yàlla jàppale booyal ak sa askan mandat bi yàlla na oyof li ma lay wax rek ce n'est que le début du commencement iñaan fayul demul fenn àndale nag moom jàppale ko vision bi am ci Koungheul man sax ci Koungheul laa bokk tey à part de tey citoyen doonal Koungheul bon na ngeen ko jàppale bañ koo fakkastal li ma leer ba leer ma mooy lépp lu nga xamante ni nii équipe municipale sortante bi fi nekkoon Mayacine Camara ministre jiite ko lépp lu amaloon Koungheul njëriñ Badou dana ko wéyal waaye lépp lu fi doon ñaawteef walla ndëngate wala jubadi Badou dana ko dindi mairie bii ñu nekk mën naa ko garantil waa Koungheul ne Badou dana ko def këru vert fu nit taxaw li fi xew danga ko gis ndax du am lu mu fiy nëbbu wala lum fiy làq fas naa yéene aussi joxanteeg moom loxo liggéey ndax dafa am ci lu ñuy wax ci ay projet intercommunalité fas naa yéene njëkk ko signé ak Badou lii ndax yeneen communes yi développé moom xam na ci dara di Sandiara di Mbour di Malicounda seen projet intercommunalité moo tax ñu développé communes yooyu bon foofu leen fas yéene jëmale sunu askanu département Koungheul Mor Seck si ñun la àndal waroon na fi teew ñoom Madiama Seck sunu papa Alaaji Mot Dieng ak mairie département bi yëpp ñun ñëpp nañ ànd nekk benn liggéeyal suñu bopp Koungheul nit du jógee Kaffrine ñëw di ñu ko defaral Koungheul nit du jógee Ndakaaru ñëw di ko defaral ñun ñëpp ñoo bokk kilifa di président Macky Sall keroog ba Badou di jóge Dakar di ñëw Koungheul di campagne ci président Macky Sall moo ko jox liste loxoog loxoom. mooy ëllëg ndaw mooy ki nga xam ne tey moom la ëllëg soxal kon boo ko taxawalee. dina def lu tax mu yàgg fi ba ëllëg bu doxee ci askanam kenn du ko xeeb kenn du ko joxoñ kon loolu moo tax ñu tànn loolu ñu ànd nag ak ay mag yu baax mag yoo xam ne kenn amul lu mu leen di reprocher suñ ci tuddee kenn rek tudd nañ ñëpp mooy le président di comité des sages Ousmane Ngom ñoom ñoo ñu ñemeloo fi ñu jëm dañuy wax Aline ba dara dafa am courage mais sama courage ñoom la parce que ñoom ñoo ma doon gindil pëkk yu nekkoon ci yoon bi yëpp ba tey ñu yeggali suñu yoon ba mbébét bi ñu amoon doon ko suuxat suñu xol juróomi at a nii yàlla defal ñu ko mu ant kon loolu sant yàlla la mais si sant leen la ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay di leen gërëm di ñaan yàlla lépp luy yaakaar te ngeen amoon ko ci ñun yàlla na ko yàlla yeggali ba du ngeen wute dara kon ma sant aussi bu baax samay soxna parce que su ma amee xel mu dal ñëw Koungheul di fi toog vraiment ñoom ñoo ma jàmmal munoon nen ma bundu xataal ci loolu mais defuñu ko dañu am xel mu dal ci man bàyyi ma ak sama sago may ñëw Koungheul di dund sama bëgg-bëgg mooy lan mooy fexe jël Koungheul defar Koungheul mujj gi ñu fekk si ma ci terrain bi ànd ceeg man kon loolu dama leen di sant bu baax gërëm la di sant aussi nag sama yaay parce que luy njiit mooy njaag tey defe naa ne suñu mënee li ñu mën wala ñu doon li ñu doon moom moo ñu ko liggéeyal kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér di ko ñaanal saa su ne rek muy gis lu ko neex ci ñun yàlla mën na ko yàlla na ko def di sant bu baax a baax a baax nag ñi nga xam ne ay naataangoo la yoo xam ne ñoo nekkandooroon fii ci département ànd nag depuis 2017 di yëngatu di daw di liggéey kenn ku ci ne amoon mbébét bi ma amoon ci Koungheul ci commune bi mu ne tey yàlla def am ñoo xam ne seen yéene seen mbébét antuwul waaye dañ leen di jaajëfal bu baax ndax lañu fa am ñëpp teg nañ ci bët kon damay citer monsieur Seth Seck doon candidat ci mairie Fass Thiékène nga xamante ni il n'a pas démérité mais aussi damay ndokkeel ñi nga xam ne jot nañoo jàll à travers la personne de der Dieng bi fi jógee maa ngi koy remercier di ko sant di ko encourager aussi di remercier aussi Mor Seck maire commune Ida bi nga xam ne tey yónnee na fi délégation bu am solo parce que dafa am ngànt mais sànq rek mu may woo di ma wax yéeneem pour ñëw maa ngi koy remercier moom it di ko ñaanal yen bi bu mu oyof maanaam kattan gum ko yenoo di remercier Madiama Seck aussi maire Ribo Escale moom it di ko ñaanal la même chose di wax rek département wu Koungheul benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te développement munoo ko envisager fii ci commune nu Koungheul fàtte yeneen kii donc Pape Sader wax na sànq lu am solo intercommunalité dafa am solo. ba tax na don la boo xam ne tey dañ koy jël en compte pour que ñun maire yëpp ñu ànd la main dans la main pour mun a jëmale booster le développement de notre commune ou de notre département vers l'émergence kon damay sant gërëm ñëpp ku lim nag dangay ngay juum du fi nekk di lim ñëpp ñu ma jàppale Koungheul intégralement sant naa leen gërëm naa leen parce que bu ma ne Koungheul rek cité naa ñëpp cité naa ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp la presse maa ngi leen di remercier la sécurité maa ngi leen di remercier di encourager l'équipe municipale sortante à travers la personne de Mayacine Camara qui est un frère maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla wutul ko li mu ñàkk fii donc doomu Koungheul la ñëpp xam nañ xaralaam ñëpp nangul nañ ko xam-xamam ñu ngi koy tàllal loxo aussi di ko wax ne Koungheul ñoo ko bokk te Koungheul dafa war a jëm kanam kon Koungheul soxla na képp kuy doomu képp kuy doomu Koungheul ñëwal nga jàpp ci ñu ànd ñu jàppalante donc monsieur le maire ñu ngi lay tendre cet appel là di nuyu aussi di sant di remercier bu baax a baax a baax a baax monsieur le coordonnateur Madiaw Mbeng Madiaw Mbeng dama koy sant gërëm ko pour ñaar yëf pour liggéey bu mu ci ak abaat ci ñun ànd ak ñun depuis plus cinq ans ànd ak ñun di jiite di doxal muy dox dama koy sant pour loolu mais aussi dama koy sant pour grandeur tey mun nañ ne xañ nañ ko jox keneen mais soo xañee sa waay ngay xañ pour jox nit parce que bu ñaari nit dëgëree nga jox keneen bàyyi sa waay loolu moo waral toogul ci table mais fii kenn gënu ko ko mérite kon ma sant ko gërëm ko bu ma ko santee sant naa staffu Baduli yëpp la jeunesse les Linguères les Damel tout le monde bàyyiwuma kenn di sant yàlla bu baax encore une fois de plus di remercier tout le monde jërëjëf jërëjëf Koungheul et vive Koungheul jërë ngeen jëf mbokki internet yi lii la leen jëlaloon fii ci mairie bu Koungheul euh, ci cérémonie d' installation du nouveau maire de la ville de Koungheul monsieur Alioune Badara Ly euh, cérémonie bi nag ku ko présider mooy le préfet de Koungheul monsieur Ousmane Niang euh, donc dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni moom le préfet rotal na ko jëm ci respect loi parité ci bureau municipal yi mais aussi Alioune Badara Ly wax na lu am solo lu jëm ci li nga xamante moom mu ngi koy xaar ci liggéey biir commune de Koungheul mais aussi li nga xamante ni moom mooy bureau bi composition bi léegi ngeen ko noonu euh, monsieur euh, Mamadou Ndiaye mooy premier adjoint bi deuxième adjoint di Ndeye Binta Dramé troisième adjoint di Aliou Ba euh, li ñu ci mën a jàpp aussi mooy kenn ci conseil municipaux yi mooy monsieur Maguette Sène démissionné na absent kenn lañ ci noté muy Fanta Sall donc loolu lañ leen jëlaloon ci installation du maire de la ville de Koungheul monsieur Alioune Badara jërë ngeen jëf.